rajo déparé sunu bopp Modou Modou yëpp a ko bokk ku ci jaaxle mbir na nga laaj Baye Diouf indi la rajo déparé sunu bopp Modou Modou yëpp a ko bokk ku ci jaaxle mbir na nga laaj Baye Diouf indi mbok sénégalais yi asalaamaaleykum mbokk Gambien yi déglu radio defaral suñu bop ci kàllaama wolof mbok ñu ngi leen di nuyu di leen indil ay faram-fàcce ci mbirum keuyit yi nga xam Italie mu ngi ko ubbi woon ci mois de juin bi 1er juin mu nekkoon ay keuyit yu ñu doon maye ay euh, kat yu étranger yu nekk ci dëkk bi.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

wa donc ñetteli euh, ñetteli euh, euh, point bi waaw ñett point bi bi nga la bi circulaire bu ministre bi point bi mooy koo xam ne mënoo dem convoqué bi de bi datore di labor bi may nañ ko mu délé, délégué euh, keneen kenen ci mbokkam yi utu ko pour dem and ak kat bi pour ñu dem signer kayit bobu di fàttali rek ne euh, délégué lay doon bo xamné datoré di lavoro bi mo koy bind wax lutax euh mënul ñew su dee mbirum santé wér-gu-yaram la loolu lañ gëna wax nak waxuñ nak ndax ku voyager mais dal délégué bi mom euh su fekké né voyage tamit ku fi nekul tamit mo mënoo wayé nak il faut nga jox délégué signé délégué ak copie carte d'identité sa copie carte d'identité momit ki ngay délégué mo indi copie carte d'identité ñu mën la wuutu and ak kat bi euh kat bi mom wax deug yalla mayuñ ko ben yoon mu absenté pour signer lolu ñuy lolu ñuy wax euh délégué pour dem signer lolu ñuy wax contrat de soggiorno moy contrat bi leunk euh, permis de séjour bi ak liggéey bi waaw loolu mooy contrat di soggiorno bu nga xam ne ñu ngi koy signé foofu suñ la convoqué foofu ci sportello immigration mbokk donc bi mooy ñetteeli euh, parti bi xanaa rek ñu ponk bi xanaa rek ñu ñëw yegg ci ñeenteel bi bu leen sori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

wala euh, patron bi génn àddina wala euh, euh, entreprise ba tëj su ministère bi nee Sportello dinañ caytu pour xool liggéeykat bi nan permis de séjour bu gàtt boobu koy per attesa di occupazione mooy permis de séjour pour chômage mbokk donc lii mooy circulaire bi bu leen sori ñu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 administration surtout nak ci réew mi ñu nek ku seq ak mom wax deug yalla do yakamti le de do taxaw da ngay continuer def la ngay def ndax ndaxte reçu bobu ñu la jox wax deug yalla mën nga circuler ci réew mi te euh, kenn du la ci euh, créer problème di la jéem def lool ñuy wax expulsion waxon nako fi juroomi weer a ngi nii euh, te ñañ convoqué motugul sax 5 ci demande yi kon nak di wax ne mbir mi du nek lu gaaw waaye nak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 téléphone bi mooy numéro bu call center 348 115 52 51 ñu bamtuwaat ko 348 115 52 51 mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di leen jox dig daje ba beneen yoon jërëjëf. rajo defaral sunu bopp Modou Modou yëpp ak ko bokk ku ci jaaxle mbir na nga laaj Baye Diouf indi laaj rajo defaral sunu bopp jaaxle dañ na ci moodu moodu ku am looy laaj laajteel dana la leer a leer ci jaaxle biir nanga laaj Baye Diouf rajo defaral sunu bopp indi na ci jaaxle ci moodu moodu yi ku xamul laajteel